tukulóor boo képp si teg kekk tax tàcc da koy yomb. non waaw say supporter li nekk sa ginnaaw moo tax ngay jéem a tëkk bu laal. déggoo ma gars yi xam nañ lu ñaa capable ak lu capableul man duma ma dellu ginnaaw ak adversaire bu mu munti doon nag waaw sama combat bi sax laay bëri anière ndax conseil yëpp mooy anièreal jël sa temps quoi mais ay bulaal ñoo ñëpp samay adversaire lañ ay abu njaase ñoo ñoo ñëpp samay adversaire lañ ba ci ay Tapha Mbeur ñoo ñoo ñëpp. Tapha Mbeur am na combat. non Tapha am na combat moo tax sawaruma ci. wax quoi mais damay wax quoi adversaire yi nga xamante ni war nañoo mun a bëre ba ci ay kii nu mu tudd Papa Boy Djiné am na combat ñoom ñëpp samay adversaire lañ war nañoo mun a bëre quoi xam nga mais làmb boo laajee say morom duñ la jël noonu la demee te sa morom boo si laaj rek day jàpp ni xam nga yow da waajal wala da pare si kawam ba pare soog koo jël fekk demeewul noonu maanaam yàlla baax na daal nañ dem ba si kanam rek. boo ñaan ñu fi laaj ñëpp ay ndaanaan lañ nga ñëw laaj waaye tey jii am na si koo xam ne nag tey jii sa réeb mooy bëre moom daan ko pour egg si kaw bu bokk la ñi nga xam ne mooy ñoom nga laaj. waaw Jackson Jackson moom. revanche bi waaw du revanche. ah revanche ñu na ndax silence arbitre c'est le maître du terrain ndax li arbitre wax ñun seen mën a sukkandiku. waaw loolu la wax. mais moom bu tëddee ba yeew war naa xam ni daalul bër Jackson combat boobu doon na combat bi nga xamante ni moom laa gën a bëgg sama rêve. Jackson mu ngi lay de moom émission seeti mbër lépp lay setaan mu ngi lay dégg moom Jackson wax la ak moom. daje nañ stade benn jour ma tegal ko mbër dinañ bërewaat man ak yow te bu bu yàlla defee jàmm rek maa moom dinañ bërewaat quoi ndax sama morom la te war nañoo mën a bërewaat maa ak moom ba ndam leer quoi xam nga li ma la wax la demee te jour buñ bërewaatee dina xam ni ñaamum bëreloon ak ñaam yi bokkuñu kon daal su ma déggee sax ñu fi jot laaj ñëpp sa xel yëpp si Jackson la gën a nekk ka ñoom. ci moom la gën a nekk kay bu baax a baax ndax xama nga rek dañ doon xëccoo ñu faral ko jox ko yaa ngi dégg te dafa war a leer ko man ak moom dafa war a leer plateau bu ma toog nag dama koy laaj maanaam suñu combat daa war a leer te Jackson xam nga ci moom laa njëkk a déggee muñal muñal bi nga xamante ne leerul yaa ngi dégg bu doon lu leer la du ma ci débat mais dañoo war a bëre man moom mu leer waaw noonu la demee. ngeen wala bëri yàq mu leer. Lamine Samba combat boobu dumbul kooñaa ñun ñoo bëri premier combat man ak Jackson Lamine Samba ci boppam moo taxaw ne jël bi leerul arbitre nañ xoolaat ni ñuy def xam nga li ma la wax yooyu dama koo wër fii ba sonn barki Serigne Bamba si biir baa fi tout près dama koo wër ba sonn mënu ma koo am ñaan na ku ko am laase ko booy ñaa xam nga mu leeral gars ni ne Jackson daanu ko waaw man Jackson bu may lim defet sax du ma ko limaale. li ma yow li ma xamul ni ma lay def rek moo tax ma limaale mais du ma ko limaale. defet la kat ndax ndax xamul tax defet la ndax yaa ngi nii lim fee victoire kon da ngay lim fee defet ndax jànqalaat da laa daan kon Jackson ni la jànqalaat daane nga nangu da ngay lim Jackson da laa daan nga nangu ba keroog nga koy daane wala mu lay daanaat. non Jackson daanu ma Jackson moom defetam boole ma ko sax ci ay defet Jackson daanu ma te buñ dajawaatoon dina xam ni lépp dëgg la. noonu la dëgg waaw bilaay. waaw mbokk internet yi ngeen gis booy naa tey ñu seet si ko seen émission seeti mbir ngeen gis lim fi jot tëkku ay Boulaal nga dégg ma ay Abou Niasse ay Brise waaye nee na li ko gënal mooy combat mag Jackson kooku Jackson mi lay seetaan bu baax a baax ndax Jackson ndaanaan la comme yow coow lu bari nga ne jël am naag amut waaye arbitre c'est le Méditerranée arbitre li wax mooy am nga gis tey ñëw seet fii Boy Niang seen émission seeti mbër ñu gis boo Niang benn rumeur buy daw ñu xaw see force wéewu boy am coow lu amoon Malika mu bari woon coow trop ñu dégg si sa tur affaire bi xaw ñoo jaaxal tey moo tax ñu gën ñoo duñ ñëw Malika ba ñibbi te laaj ñu si loolu mu si diggante booy Malika. waaw diggante ñun waa Malika côté bële tey dañuy confirmer waat mooy ñun amuñu bandi ñun waa côté bii ñun amuñu bandi ñun fii booy ay dóorgatu waar lañ. xam li ma la fii booy bu fi toog rek tey mi ngi liggéey am na ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni ñëwuñu ku fi toog rek am na fi nga xamante ni saa boo xëyee fa ngay dem suturloo fa yaa ngi dégg ñi ñi ñiy dara ak ñiy raas déem bokkuñu yaa ngi dégg foo dem nag amul mënul ñàkk ñiy raas déem mais man samay booy dañuy dóor waar du défendre nag du dara dañuy liggéey xam nga parce que man loolu laa leen xamee quoi ñun bi ñuy nekk ay xale ba léegi booy xaaj bi yëpp sama gaal lañ barki Serigne Bamba Mbacke di leen ñaanal jàmm di xamalaat gaay nag ñun duñu ay bandi ñun xam nga Dóor waar lañ xam noonu la demee booy Malika di ko ñaanal moom xam nga balam boobu yàlla defal ko jàpp mu génn si yaram bi mais tamit di sant sama booy ñoom Philippe Seydou Malien xamuñu dara am na booy ñu si téye affaire yooyu xam nga li ma la wax di leen ñaanal fi ñu nekk ñu jóge fa ñëwaat suñuy loxo xam li ma la wax la demee di wax gars yi nag man Malika laa dëkk 100 pour cent man fi laa juddoo yeroo fi dëkkuma feneen boñaa du fréquenté ji feneen fi mu dëkk fa lay fréquenté moom bër la bi nga xamante ni goxam la yëg xamal li ma la noonu la demee deretu Malika mooy daw suñu yaram parce que Serigne Bamba. dañoo dégg rumeur bi ñu for ko si wéb ñu ne booy def loolu ay booy booy ñaa lañ loolu tam ñu ko déggee tamit li ñuy wax rek tungaloo teew ñuy nataal sama naar naar yaa ngi nii naar bu ne xam nga li ngay jar moo tax ñu bëgg mu leer pour ñiy seetaan bokk internet yi seetaan SBT Média xam ne ah boo ñaa am na si leneen lu mu nekk lu bokk ak loolu. waa Boña comme li ma la wax rek ay booyam dañuy liggéey booy yëpp dañuy liggéey mban mbër mi damay liggéey saa bu ma xëyee dama lay romb si télé bi damay dóori waar sama patron Mor Kébé ki ma doon wax léegi maa ngi koy santaat ku si mel ni Sidi Sibi maa ngi koy sant di ko ñaanal jàmm xam nga moom it day jàpp si combat yi pàkkaani siidi mii dëkk far ba di ko ñaanal jàmm bu baax a baax di ko ñaanal lu mu yóotu rek yàlla na si jot man dama am ñi nga xamante ni xam nga dañ siy jàpp ay Omar Diassé xam nga ay Abu Seydina xam nga li ma la Omar Kité ñoom dañuy jàpp si combat yi bu baax a baax kon aw ma aw ma xam ma habitude du ma du ma dem jëli yëfi jaambur quoi wala may yónni keneen mu dem jëli yëfi jaambur non non ñun liggéey lañ xam dóor waar xam ma moom lañ xam daal dóor waar ñun ku ñuy waxal rek dañuy ñaan yàlla xam nga waxal ñu lu baax ndax nit tamit boo nekkul ak moom di ko seedeel mun nga koo seedeel li nga xamante ni ëllëg di ngeen ko layoo yéen ñaar te dara du ko jar quoi xam nga di xamalaat gars yi ñun ñun waa Malika fii xam nga waa Malika 2 sax lañ ñuy wooyee ñun waa Malika 2 suufu montagne amuñu bandi amuñu sàcc xam li ma la dóor waar lañ xam kuñ ci jàpp ngay sàcc nañ la tëj wala ñu dóor la ba ray la mais amul ay jiinaate ñee nii lañ mel ñii nii lañ mel amul di san sama grand Kara Dollé bu baax di ko ñaanal jàmm taw fii xam ma moom it bëggul benn booy buy déranger wala kuy dëngal mosu koo bëgg xamal li ma la kon ñun duñ dox si loolu di ñaan jàmm daal xam ma di xamalaat gars yi ñun ay dóorkatu waar lañ loolu lañ xam ñun amuñu bandi yaa ngi dégg di ñëwaat encore ci kàddu yi ndax ndax xama rek am na li nga xamante ni faaw ñu leeralaat ko bu baax ñun xamuñu sàcc xamuñu fenn dóor waar lañ xam boo ñaa ngi nii toog musuñu koo pelante fii si police bi police bi yàgg na fi de musuñu maa pelante musuñu maa jël si fii ne ma kaa yaa wax lii kon nga xam ni xam ma rek am nañu am ay rumeur la quoi waa noonu la demee di waxaat gars yi xam nga nit loo siy wax rek na doon la leer wala mu doon li nga xamante ni li nga xam la waaw di ñaanal Philippe ak Seydou Malien fi ñu nekk yàlla génnee leen fa ñu ñibbi si xam ñu ñëwaat suñu wet barki Serigne Ba moom baake ndax xam rek am na lu leen fa yóbbu te xamuñu si dara di leen ñaanal jàmm daal fi ñu nekk ñu ñëwaat si ñun waa noonu la demee. comme dañuy dégg dañ ko dégg tamit euh, des dañoo leer te moo tax ñu gisaat tamit yéen ñu yenn yu bari ba si problème mu Bébé Diène ñu gis ko tamit boo tam ñu xaw ko force yooyu bay ne Bébé mu si biir dafa am problème at yooyu maanaam tey booy lancé. sa moromu mbër yi maanaam si ñu ngi leen di dégg si yenn violation yu sew yi tey ban message ngay lancé sa moromu mbëri waa waaw sama moromu mbër di leen wax ñu dóor waar ndax xam nga mbër da ngay dóor waar ndax boo dóorul waar tamit am na li nga xamante ni buñ la ko jiinee mënoo see génn. parce que yaa ngi xëy di toog bëgg di faj sa soxla làmb demeetul noonu xam nga li ma la di ñaan bëri sama morom bëri yëpp ñu dem dóori waar ak tamit xam nga booy fréquenté tamit ay booy yi nga xamante ni duñ ko teg si yoon. nga leen di teg si yoon munoo ko nga toog sa gaale xam nga ñun loolu lañ xam man noonu laay dundeek booy fii moo tax booy lu ma bëgg dañ koy bëgg di leen ñaanal jaama parce que xam rek ñoom tamit dañuy topp sama bëgg-bëgg quoi nit nekk na si dara ma woo ko wax ak moom mu bàyyi maanaam cër la bi nga xamante ni da koy dund ak ñoom di ñaan sama morom mbëri ñuy dund ak loolu xam nga ak seen i booy ñuy nekkal ak seen i grand xam nga li ma laa yenn saa nga nekk ak bi nga xamante ni moo la mag fuuf mais maanaam jëmm day dox xëy na nga mag si jëmm ngeen toog waxtaan loo ko wax mu def maanaam foofu tamit cër moo fay dox quoi waa di ñaanaat gars yi tamit xam nga yeneen mbëri ñu waxaat gars yi seen seen tutànk yi comme loolu ñu leen di jàppale bu baax a baax ndax xam rek xale deretu xale dafa gaaw a tàng yaa dégg rawatina nag xale bu entraîné waaw di wax gars ñu dóori waar bu baax xam li ma la bu combat taxawee nga bàyyi waar bi dem entraîné ji waajal combat bi man noonu laa ko jàppoo waaw damay liggéey di sant sama yaay nag bu baax ak sama papa waaw di leen ñaanal jàmm daal ndax ñoom tamit xam nga jur nañu fu ñu war a juree yar ñu xam nga kon mënuñoo dem ba tool nii di saltel suñu der waaw di ñaan jàmm noonu la demee. comme ni ñu tërale woon si waxtu doon sa émission seeti mbër tey ñu woon seet si la maanaam la ngay tàggatoo at la ngay wax say supporters la ngay tàggatoo at la ngay wax say supporters ak ñi lay jàppale. waaw di sant sama benn yaay Mariso di ko ñaanal jàmm kooku moom moom moo ma yar quoi sama lépp ci moom la. di ko ñaanal jàmm tawféex xam nga di ñaan yàlla ay mu dund ba ay mu fekkee ay njëriñu doomam cons Fallou Thiaw papa xam nga di sant sama gaay ñoom moo Thiaw Abdou Guèye xam nga sama gaay toog fi yëpp di leen bëgg bu ma limee damay juum ay soq fat-fat xam ñoom jine mbay jili sama gaay xam nga di sant booy job bu baax a baax waaw di ko ñaanal jàmm ndax combat bi mooy loolu jàpp na si daal xam di ñaan jaamu daal ay fuus baaba xam nga séeri daba di sant gaa yëpp laay waaw Sina Koña xam nga di sant ñëpp daal di am jàmm. waa di ñaanal ñëpp jàmm di sant sam benn copain Abdou Gueye bu Diouf di ko sant bu baax xam nga di ñaanal sama gaay yi yi nga xamante ne xam nga dañuy dóor waar seen liggéey avancé quoi ndax seen liggéey bu avancé ñun dañ ciy gën a yëg suñ bopp ndax dañuy jàppale bu baax waaw di sant sama benn booy jaajaa di ko ñaanal jàmm bu wér a wér waaw di ko ñaanal tawféex waa di sant waa Caaroy nag ndax sama combat bi nii waa caaro Caaroy dañ. Pakkaani waaw waa Pakkaani ay Ousmane Mbaye xam ma Ousmane Mbaye ku si mel ni ay Sidi Sidi mi ma la doon wax léegi da si jàpp bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal xam mu avancé ci liggéeyam quoi ndax dañu mën a jàppale tamit ndax ñun ay mbër lañ xam nga li ma la amuñu lu dul ñuy jàppale sama ticket yi ñoom ñoo ko jënd benn borog bi foofu noonu. caaro yi di sant Babacar Kebe bu baax ak Cheikh Kebe xam ma di sant gaa yëpp ay Tafa xam ma Tafa di ko sant bu baax. di san sam papa ji si ginnaaw laay san sama doom ji soose kii sama tu tànk la moom bi muy xale ba léegi maako ko yar ci man la ne musul xaddi benn yoon waaw di sant papiko bu baax a baax di ñaanal booy jàmm daal xam di la ñaanal yow jàmm parce que yow sama nit nga te xam nga li ma la wax waaw yow bu la neexoon sax tey lii nii du la si fekk di la ñaanal tawfeex sama baay faal bi di ko ñaanal jàmm bu wér a wér san sam benn grand mut jaaw waaw mut jaaw moom tey jàpp si combat ay bu baax a baax moom xoolul ndax am naa combat wala aw ma combat yaa dégg ay Cheikh Fall sama booy bi caat moom xamul sax ndax ñaa mi ngi xëy wala xëyul moom moom lu war a sama diggante man da koy def sak essant di sant sama benn jarbaat si ta waaw moom tamit xam naa dafa buuse ay Ibu Diallo di leen sant moor bu baax ñoom seddeex gaa yooyu noonu xam nga di sant boo yëpp di sant baylaat sama géwél bi waaw baylaat daa mel ni war nga koo xam waa mooy nii di ko ñaanal jàmm xama rek combat bi dañoo waroon ñëw tuus lu neex mais dañoo tardé yaa ngi dégg laat moo waroon taxaw si kanam waaw <laughs> noonu la demee di sant soogi bu baax di ñaan jàmm daal Malika ndax ñun fii lu dul jàmm xaju fi di sant booy ñoom njaga xam nga li ma la wax barki Serigne Baba Mbacke combat bi booy ñëpp billaay wallaay dañ si fii mooy CM Samba Kagne CM Samba Kagne fii la quoi sant presse presse bu baax daraame waaw di leen ñaanal jàmm ñun dañuy duggee fii nu mu ñu neexee kenn duñu tere yaa ngi dégg presse day génn ak ñun toog fee nga ñu fekk fa lay toog ñun di waxtaan comme xale bu ndaw booy sama combat bi géej barki Serigne Ba mbëba si ginnaaw chaque quatre heures ñoom ñëpp ay Moussa Sita Soose Assane Njaga ñoom ñëpp ay àndaw dañ may jël si barki Serigne Ba ma ñu dem géej quatre heures ba timis billaahi di leen ñaanal jàmm di wax nag combat boobu bu yàlla defee ndam di sant bu baax mais booy tamit jàpp nañ si quoi am nañ si wàll ndax yéene woon nañ ma ko quoi xam nga li ma laa la demee di sant daal gaa yëpp di sant waa koñ bi bu baax a baax waaw ndax waa koñ bi gis naa seen seen taxawaay ci man quoi di leen ñaanal jàmm waaw noonu la demee. booy ñoom waa Garaas Galandoo ñoom Aliou fat boo xamul la nga naan fii lañ dëkk barki Serigne Bamba ndax diggante bii nii. ñii moom laa gën a jàpp mu naax ni ñoom laa gën a jàpp si waa Malika ndax ñoom xooluñu sama sama kii xooluñ ndax boñaa mi ngi avancé wala mi ngi si leneen ñoom daal xam nga chaque jour rek ñoom bu may wax si ñoom sax sama xol day fees quoi ndax niñ may taxawoo ngoon ñu nag ñoom ñoo war a fubal mbër yi fii dañoo am mas kon nga xam ni fii jàmm rek moo fi am quoi xam nga mbër yi si koñ bi mbër yi côté bi ak mbër yi xam nga ñun ñëpp ay dajaloo dem fubal yi ay jinne mbay xam nga moom mooy ex moom mooy latéral bi te man excentré la xam naa ne bu ko fekkee si kanam tuuti du doy loolu ngormaa bi lay doon <laughs> noonu la demee di sant gars daal bu baax di leen ñaanal jàmm ay jiili Aziz di sant ñëpp noonu la demee ay yaaw sama gars leen bëgg daal bu baax yow Idi di la sant yow tamit di la ñaanalaat quoi ndax yow sama waay nga xam ma sama doom nday nga di la ñaanal jàmm bu wér a wér waa di sant booy bi seexu naa <laughs> sama tut tàng la fii la dëkk di ko ñaanal jàmm bu baax a baax noonu la demee non match bi mbokk internet yi a ngi noonu liñ leen indil woon seen émission seeti mbër tey ñu ñëwoon fii Malika ngeen gis Boy Niang lim fi jot a wax fi mu jugee at fi mu jëm waaw di xale di ndaanaan seen émission seeti mbër la ngi noonu bàyyiwul mbër mu ndaw bàyyiwul mbër mu mag ñëpp la fi nekkal waaw bàyyiwul mbër mu mag bàyyiwul mbër ndaw ñëpp la fi nekkal di ziaraat ñëpp képp kuy safa SBT Média rek ziar naa la magal naa la jox naa la sa wàccuwaay bu wër a wër rawatina la waa di leen ziar bu baax a baax di leen seen wàccuwaay di ziaraat kulluum kuy safoo Idi rek maa ngi lay ziar jox sa wàccuwaay di bëggee sëñ Saliou yaakaar jaam ñi tey ak ëllëg xam nga su ma nit la su ma la soxna May borom yokkal ma jaay la ziar naa bu baax a baax soxna Fat Faye ko ñooñu dañuy safoo SBT Média di ko bëggee ko ko tiitaroo di wax seen émission seeti mbër nii kese la at champion yëpp nag bàyyiwuñ kenn bépp fu mbër nekk rek dañ lay seet at li mu fa nekk xam ne mbër mu mag ñëpp la ñuy seet seen émission seeti mbër nag mu ngi nii at SBT Média da leen abonné saa su waaw dana abonné saa su ne numéro téléphone bi benn la 77 la 964 94 mooy numéro bi ku ko ku ku si woote di nga jot directeur mu wax ak yow at foo mënti nekk nag mbër mu ndaw ak mbër mu mag ma ànd ak sama jina caméraman alaaji maas bi demul màkk ma doxalal ñu dem dig dëgg benn émission fii si SBT Média rek kese dong doxalal ñu dem.